sëriñ boobu mbay njannaate sëriñ boobu mbay njannaate mi ngi feeñ jamono ci atum 1869 ci dëkk boobu di njannaate mbay nekk nag ci suuf si nag di kajoor sëriñ boobu mbay njannaate ginnaaw bu mu feeñee jamono ci atum 1869 ci dëkk boobu di njannaate mbay di doomu soxna Fatma Jaañ ak ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Mbay moom sëriñ boobu mbay nag am na ñu bokkal kii di soxna Fatma Jaañ ak kii di sëriñ Ibrahima Mbay ñu man caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Moor Mbay ibnu soxna Fatma Jaañ ibnu sëriñ Ibrahima Mbay ak ku ñuy wax sëriñ sëriñ Moussa Mbay ibnu soxna Fatma Diagne ibnu sëriñ Ibrahima Mbay ak ku ñuy wax soxna Ndiir Mbay bintu soxna Fatma Diagne bintu Cheikh Ibrahima Mbay ak ku ñuy wax soxna Fatim Mbay bintu soxna Fatma Diagne bintu sëriñ Ibrahima Mbay ak moom sëriñ Buubu Mbay ibnu soxna Fatma Diagne ibnu sëriñ Ibrahima Mbay ñaar ñu góor la bokkal waajur wu jigéen ak waajur wu góor ak ñaar ñu jigéen ñu bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom muy ñett kon soxna Fatma Diagne ak sëriñ Ibrahima Mbay juróomi bant lañ soxna Fatma Diagne ak kii di sëriñ Ibrahima Mbaye danañ ci taxaw nag kenn nag ci ñoom di kii di soxna Ndiir Mbaye soxna Ndiir mbay nag bi matee dem kër ku ñuy wax sëriñ Ahmed Chérif lañ ko joxoon nag ci dëkk bii nag di Ndeer ginnaaw buñ ko joxee sëriñ Ahmed Chérif ci dëkk bii di Ndeer sëriñ Ahmed Chérif nag ak kii di soxna Ndiir Mbaye am nañ nag benn bant nag ku ñuy wax nag Ahmed Khouraychi ginnaaw bu soxna Ndiir Mbaye nag jógee ci loxoy Ahmed Chérif mii ci dëkk bii nag di Ndeer lañ ko jébbal nag ku ñuy wax sëriñ ma Lamine Njaay xewar sëriñ ma Lamine Njaay xewar mii nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xadiim nag la bokkoon ba tax na am naa kii di soxna Ndiir Mbay itam ak njaboot ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna maam Jóob Njaay ak ku ñuy wax sëriñ Saaliwu Njaay soxna maam Jóob Njaay mii di doomu soxna Ndiir Mbay ak kii di sëriñ ma Lamin Njaay xewar bi matee dem kër ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xadiim nag lañ ko jébbaloon ba tax na bokk na itam ci soxna yi ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xadiim dëkkoo woon soxna maam Jóob Njaay mii itam ci dëkk bii di Tuuba itam la génne àdduna ci atum 1986 kër soxna maam Jóob Njaay mii itam di doomu soxna ndiir mbay ak sëriñ ma lëmin njaay xewar moo dend kër soxna moomi bintu sëriñ tubaa seexul xadiim soxna maam jóom njaay nekkoon doomu mbay jarbaatub sëriñ buubu mbay la ku bax ki sëriñ tubaa seexul xadiim dëkkoo woon na ko moom sëriñ buubu mbay njanaate nag bi matee dal alxuraanul karim magu waajuram di sëriñ tafsir mbay moo ko jàngal nag lii di alxuraanul karim ba mu géeju nag ci wàllu alxuraanul karim moo ko jàngal itam nag lii di xam-xam ginnaaw bu mu jàngee alxuraanul karim ca sëriñ tafsir mbay ba tàmbali faa jàng nag lii di xam-xam ginnaaw bi itam toppaatoon na biir réew mi fépp fu mu dégg daaray xam-xam nag mu dem fa nag fa séene faa jànge ginnaaw bu mu sàkkoo xam-xam nag ci biir réew mi dafa dellusiwaat nag ci dëkk boobu mu cosaanoo nag di njannaate yor fa nag daaray alxuraan nag di jàng ak di jàngale ba nim déggee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim booba nag ku baax sëriñ tubaa seexul xadim nag mu ngi ci réew mi nag di gànnaar nag ci résidence surveillée ginnaaw bi nag sëriñ buubu mbay njannaate itam nag sol naw dàllam dem gànnaar nag ngir jaayante ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ginnaaw bu mu demee gànnaar nag ba jaayante ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim noppi la ko sëriñ tubaa seexul xadim di ko wax ne bu delsiwaatee ci réew mi nag mu dem ci maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di ko wax ne joxañ baa ngi noonu kon loolu moo waraloon nag sëriñ buubu mbay njanaate nag foofu léppam nag jébbal maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di ko xoolee xaadim rasuul ginnaaw bu sëriñ tubaa seexul xadim jógee gànnaar nag ñëw ca yéen jolof sëriñ buubu mbay njanaate itam nag daana dem ca yéen jolof nag mu nekk nag murit bu dëggal nag ci ginnaaw maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru waaye fab dundam gépp nag jagleel ko alxuraanul karim ba tax na nag nekkoon na nag ku ràññeeku ci alxuraanul karim ràññeeku googu mu ràññeeku ci alxuraanul karim nag tax na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim woolu woon na ko ci njaareem di ko wax ne nag alxuraanul karim ñëw na fii nag di ma la kalaame di wax ne nag fonk goo ko fonk ak jàng goo koy jàng moom alxuraanul karim loolee tim taxoon na sëriñ tubaa seexul xaddiim yónni woon ku ñuy wax sëriñ mortaala njaay ci sëriñ buubu mbay booba nag mi ngi fekk sëriñ buubu mbay ci dëkk bii nag di giringel nekk fa nag di bay di liggéey di yar ak di jàngale sëriñ tubaa seexul xaddim yónni woon sëriñ mortaala njaay nag di ko wax ne mu wool ko sëriñ buubu mbay sëriñ mortaala njaay nag ci dëkk bi nag di giringel nag la fekkoon nag sëriñ buubu mbay di ko wax ne ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moo la soxla ci njaareem nag nee na nga wuy si ko ginnaaw bi sëriñ buubu mbay gisee ndaw loolu di sëriñ mortaala njaay tam jóge ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xa sëriñ mbay nag jaar na ci maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru di ko wax ne yow yaay sama buntu nag ci yoon wi te ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim kat la ma yónnee ngir di wax ne dafa ma soxla maam Thierno Ibrahima Fatim Mbàkke ndaamal daaru nag sàkk woon na ci sëriñ buubu mbay mu gaaw gaaw wuyu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ndax sëriñ tubaa seexul xaddiim kat comme soxla ku ne sa njëriñ dong nag la lay doyee ginnaaw bu sëriñ buubu mbay nag ànd ak sëriñ mortaala njaay nag ba dem wuy ji ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim seexul mi ngi doon xamal sëriñ bu mbay di ko wax ne alxuraanul karim da ñëw na fii nag di ma la kalaame ci jàng goo koy jàng wala jëfandikoo goo koy jëfandikoo moom alxuraanul karim ndax alxuraanul karim ñëw na ci man ay yoon yoonu yoon di ma wax ne nag naa la bañ a fàtte ngir jëfandikoo goo koy jëfandikoo ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim nag laajoon na sëriñ buubu mbay nag naka lay jëfandikoo nag li di alxuraanul karim sëriñ buubu mbay nag doon na ko wax nag ni mu koy jàngee guddi gu jot ak itam nag nu muy naafe nag alxuraanul karim ndax ñeenti ràkk la daan naafe guddi gu jot lii di kaamil bi loola itam nag taxoon na nag sëriñ tubaa seexul xadim nag ñaaxoon na ko itam nag ci alxuraanul karim ñaanal ko ca ko ca nag ay sasi sas nag fooboon ab kaamilub alxuraan itam nag jébbal ko sëriñ buubu mbay njanaate kaamilu alxuraan boobu sëriñ tubaa la seexul xaddiim joxoon sëriñ buubu mbay ñanaate ci keroog bi mu ko wooloo ci njaareem di ko wax ne alxuraanul karim ñëw na ci man nag di ma kalaame ci jëfandikoo goo koy jëfandikoo kaamil boobee ko sëriñ tubaa seexul xaddiim joxaatoon nag ginnaaw bi mi ngi nag ci njanaate ku dem ci njanaate nag njaboot gi wan la ko taalub alxuraan boobu nag sëriñ buubu mbay ñanaate nag daa taal guddi gu jot nag di naafe nag lii di kaamilu alxuraan bi nag ci ñeenti ràkk ak jàng googu mu ko daa fanaanee jàng nag ku ñuy wax sëriñ seex jóob nag moo waxtu moomu nag mu daa taale taal bi kon jaar na fii ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim jaar na fii itam ak alxuraanul karim moom sëriñ bubu mbay njanaate ci lool nag la sax nag ba nim génnee àdduna ci mbooleem nag dëkk yi mu nekkoon wala mu jaar fa sëriñ bubu mbay njanaate nag gor na nag li ñu tudde ay daaray daara taxawala itim na li ñu tudde ay dëkki dëkk ngir di yar di jàng ak di jàngale ngir yoon wi kat di yoonu murit itim ci daara yooyu mu taxawaloon ak dëkk yooyu mu taxawaloon nag ñu mën caa ràññe dëkk bu tudd góofoo mi ci côté dëkk bu tudd njukki itim dëkk bu tudd daaru mbay sagata mi ngi ci wetu dëkk bi itim di sagata gor na itim dëkk bu tudd sabere mi ngi ci wetu dëkk bi itim di saam yabalug sëriñ moodu sa jeng gor na itim dëkk bu tudd giringel ak fii mu mujjee gor te maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru itim dogaloon ko ko muy dëkk bu mu tuddee daaru mbay mi ngi ci wetu dëkk bi itim di koso dëkk bii di daaru marnaan itim nekk itim ci tuubaa amoon na fa lii di kër dëkk bu sell ba itim di daarul muxti itim amoon na lii di kër ci bërëb yi nag la nekkoon di yar di jàng ak di nag baaxoo di defee ba ni mu génnee àdduna ci atum 1948 bi muy génn àdduna nag ci dëkk bi nag di daaru mbay nekk ci wetu dëkku maam Cerno Ibrahima Faati bi nag di kosoo fa la bàyyikoo nag ne day delluwaat nag ci dëkkub cosaanam boobu nag di njannaate ndax kat dëkk boobu nag bari na nag ay góor yàlla yu fa tëdd yu doon sàkku nag ku leen wéttali ginnaaw bu mu delloo ci njannaate nag diir bu néew nag la fa def nag génn nag lii di àdduna moo tax soo delloo ci marché bii ko sëtëm bi jagleel di sëriñ koso mbay mag ñuy wax dëkk yi sëriñ boobu mbay njannaate jaar nag moo xam mu amoon fa daara moo xam mu dëkkoon fa nam fa nekke woon ngir fonk gum fonk alxuraanul karim mbooleem dëkk yooyu mu jaar nag mi ngi koy tudd nag ci biir marsiya bi ñu teewlu marsiya bi sëriñ koso mbay def ci maamam sëriñ buubu mbay njannaate di ñu wax nag dëkk yi sëriñ buubu mbay njannaate jaar ak nam fa nekke woon ngir alxuraanul karim bismillahi ñu dellu sant bur yàlla ak yonente bi ak Cheikh Bamba te dellu si waat di yeesalaatu njëbbal ci maam Ceerno Ibra Faati ak njabootam dellu si sant maam ju yàlla baaxal xaadim rasul jàppaat ko dal koy naatal ñaan ñaanal ko naa ko cheikh buubu toppil mam Ceerno Ibra Faati mooy ndigal li ma nga demoon xomaak ci réewi gànnaar fekk fa borom Tuubaa ma rawum béppam naar mu dal di laxa saa yi toppi di def ndigal ba am fay Ceerno am fa ñeneen ñu mu tuddee waa kër Ceerno ngir jox boppam gum jox boppam Ceerno cheikh buubu sanc na ay dëkki dëkk yu bay nañ lool ñu bay fay dàgg cheikh buubu lépp lu mu xam yónnee ko ceer Ceerno lépp lu mu jur ci doom jébbal ko Ceerno dëkk ba mu jëkk a sanc moo di daa fa liggéey ba dekkalaat soo sale suuf sanc na daara ju mag ñu ko daaru mbay diggante sagataak loora ba ñu fay bay meññ mu dellu dal fa sëñ Abdou Mbay muy baylu sañ si na girñel ba def fa daara sañcaat ca wet ga sebre def fa daara ba coor na woo ko dagal ko aw lew wu yaatu foofa mu dal di koy lew mu dal di fay dëkke ba def fay daara ñuy bay koy jàng mu tudde ko daaru foofee la yàgg lool ak liggéey ba ak dongo yaag mbooloo ma ngir barab ba liggéeyam moo di day durusu alxuraan guddeeg bëccëg saa su ne muy jàng alxuraan dëndam ba day riir ngir jàng alxuraan yaram wa daa leer ngir leeruk alxuraan daana jullee kaamil ba ñeenti rakka bu sëlmalee kaamil ba mat yi rakka toppoon na lool shariatul munawara fonkoon xatul mutahara daawul julli gennuk julli te jàppul daawul jotit lenn ndigal te ku ragaloon bu yàlla woon billahi ba tax na lu mu ñaanaa mu billahi ci dëkk yooyu mu nekkoon nag gor ko nag sanc ko fa la nekkoon nag di yar di jàng ak di jàngale boole kook nag ñi ko yaakaar nag ngir xaadim rasuul loolu itam tax na ñu baree baree bari nag moom sëriñ bubu mbay njanaate mokkale nañ alxuraan ci daaraam yooyu nag mu taxawaloon ñu man caa ràññee ay kilifa yi kilifa yi kilifa ci yoonu murid wi ak itam ay kilifa kilifa yi mi na itam nii soo leen laaja daañ la wax na njannaate laa jànge alxuraanul karim wala lenn itam ci njabootu sëriñ buubu mbay njannaate ñoo ma jàngal alxuraanul karim góor yàlla yi sëriñ buubu mbay njannaate defar na ci wàllu alxuraanul karim ñu man caa ràññee ku ñuy wax sëriñ maxtaar géy ci dëkk bu ñuy wax njukki amoon na ku ñuy wax itam sëriñ daam faal ci dëkk bu ñuy wax gisam ak ku ñuy wax sëriñ moor sëy ci dëkk bu ñuy wax ndee sëriñ abdu xujja sekk ci dëkk bu ñuy wax cekkeen sëriñ elhaaji daawuda njaay ci dëkk bu ñuy wax tàngi ci ak ku ñuy wax sëriñ cheikh sagata ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu sëriñ buubu mbay njanaate jàngal alxuraanul karim wala nag ñu jaar ci daara jooju nag mokkale fa alxuraanul karim ci biir réew mi kon bari na taalo alxuraan yu ñu taal jamono ji soo leen laaje dañ la wax ne njanaate lañ ma jafale yéeme googu mu yéeme woon ci alxuraanul karim ak fonk googu mu fonkoon alxuraanul karim ba tax mu ko daa jàng ka jàngale tax na itam ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim woolu woon na ko ci njaareem di ko wax ne alxuraan ñëw na fii di ma la kalaame ngir nag fonk goo ko fonk ak jàng goo bu mbay njanaate nag ko amoon jaxasoo la ak mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moo xam maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru la ndax moom la ko sëriñ tubaa seexul xaddiim booleeloon ginnaaw bu sëriñ bu bu mbay njanaate jaayantee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci réew moomu di gànnaar ba tax na ci loxoy maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru la nekkoon nag ba jot nag lii di ngërëm ak njabootam itim moo xam góor ak jigéen itim maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru itim la leen jébbaloon lu ëpp itim ci ay doomam itim njabootug maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru tim la leen tudde moo xam sëriñ Muudu Awa Balla sëriñ Cheikh Awa Balla ba ci sëriñ Abdul Quddus Mbàkke moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moom sëriñ bubu mbay njanaate yitim tudde na ñaari doom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ab taawam itim maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru la ko tudde am caatam itim maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru itim la ko tudde ba tax na itim bokkoon na ci goor yàlla yi gëmoon maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moo tax itim moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru juróomi at itim lañ rawantee ci kaw suuf maam Ceerno ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru itam ba tey itam yoroon na doomu sëriñ buubu mbay njanaate bu jigéen itam dëkkoo ko sëriñ jéeri daan sugu ku xaritoo woon nag sëriñ buubu mbay njanaate la ba tax na ñoom ñaar kenn ku ne daana seeti nag sa moroom am na benn bis nag sëriñ buubu mbay njanaate damoon seeti nag sëriñ jéeri waa daan sugu bisub keroog bi sëriñ buubu mbay njanaate tàggoog sëriñ jéeri waa daan sugu sëriñ jéeri waa daan sugu dafa wutlu ab këll nag muur ko nag fu sëriñ buubu mbay njanaate nag jaaroon ginnaaw bi sëriñ buubu mbay njanaate nag delloo sëriñ jéeri waa daan sugu nag woote woon na nag képp koo xam ne gisoo woon jëmm jooju di sëriñ buubu mbay njanaate kaay xool tànk bi ndax kan moom gis na leerug sëriñ buubu mbay ba bam socc jëmmi maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru te gis na leerug maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bam socc ku baax ki sëriñ tubaa Seexul Xaddiim te leerug ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim nag sonna nag ci ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam te gu ngën gi mbindeef nag mu ngi ci suñu kon nag muy wax ne jëmm ji nag jëmm ju mata ziyaar la lii nag sëriñ waa daan sugu jaar na fa xaritam sëriñ buubu mbay njanaate ci ngan nag ko sëriñ buubu mbay njannaate amaloon sëriñ ma bànji njaay bokkoon itam ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ku xaritoo woon ak sëriñ buubu mbay njannaate la ndax ñoom ñaar kan ñoo bokkoon luñ daa yëngu nag muy alxuraanul karim kon amoon nañu ak jaxasoo gu yaatoo yaatu sëriñ musaa ndooy bu la ak sëriñ buubu mbay njannaate ndax man dem naa ci kàggu sëriñ musaa ndooy naa fa itam mbindum sëriñ buubu mbay njannaate moo xam ci xasiday ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim yu mu doon bind te ñoom ñaar itam amoon nañu ak jaxasoo gu yaatoo jaxasoo yaatu ndax jokkul tàbbi ak njannaate soree wuñ sëriñ moor kumba kan koo amoon ak jaxasoo la ak sëriñ bubu mbay njannaatee ndax juróomi wàlli wuy kajoor yi ñu doon tudd sëriñ moor kumba kan ci la bokkoon te sëriñ bubu mbay njannaatee itam ci la bokkoon kon ñoom itam amoon nañ ak jaxasoo nag gu yaatoo yaatu gu ñu ma lëmin njaay xawar amoon ak jaxasoo la ak sëriñ bubu mbay njannaatee ndax ñoom ñaar ñoo bokkoon ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim te sëriñ bubu mbay njannaate itam foboon na ab jarbaatam itam jébbaloon ko sëriñ ma lëmin njaay kon amoon nañ ak jaxasoo nag gu yaatoo yaatoo yaatu yeneen mag ñim séqaloon ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim itam mag ñooñu itam noonu la amewante woon ak ñoom nag ak jaxasoo ba tax na daana leen seeti mag ñooñu itam daanañ ko seet si njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim moo xam cheikh mamadul moustapha mbàkke ku séqoon ak sëriñ bubu mbay ñanaate ak kóllëre la cheikh mamadul fadal mbàkke ibnu xaadim rasul ko amoon ak jaxasoo la ak sëriñ ba tax na doomu sëriñ bubu mbay ñanaate bii di sëriñ abdul xuddoos mbay ginnaaw bu cheikh mamadul fadal mbàkke toogee xalifa général itim teet si woon ma mu mamadul faadal mbàkke di ko wax ne kóllëre ga sama waajur wa séqoon ak sa waajur wa te sama waajur wa séqoon koog yow itim kóllëre googu nag laa bëggoon a wéyal moom moo tax taxoon itim ma ñëwoon doon la ziyaare si sa waajur wa xaadim rasul nag jébbaloon na sama waajur wa ab kaamilub alxuraan loolu itim tax na cheikh mamadul faadal mbàkke itim waxoon na sëriñ abdul xuddoos mbay di ko wax na may itim dana feddili kaamil boobu xaadim rasul bindoon ngir jébbal ko sa waajur wa may itim danaa bindub kaamil jox la ko kaamil boobu cheikh mamadul faadal mbàkke jébbaloon sëriñ abdul xuddoos mbay mi ngi ci njabootu sëriñ buubu mbay njanaate rawatina nag kii di caatum sëriñ buubu mbay njanaate di maam Ceerno Mbay ko amoon ak jaxasoo la ak cheikh mamadul basir ibnu sëriñ tuba seexul xadim ba tax na cheikh mamadul basir tim daana dem njanaate nag daa seeti sëriñ buubu mbay sëriñ buubu mbay tim faboon na doomam itim tudde ko cheikh mamadul basir muy sëriñ basiru mbay ibnu sëriñ buubu mbay njanaate cheikh mamadul basir ibnu xadim rasul la ko tudde seex masamba mbàkke nekkoon caatum mamor anta sali mbàkke nekkoon rakku ku baax ki sëriñ tuba seexul xadim di rakku maam daaru sëriñ boobu mbay njanaate itam ko amoon ak jaxasoo la ak cheikh masamba mbàkke ba tax na itam tudde na doom itam kii di cheikh masamba mbàkke ndax sëriñ masamba mbay mi ngi fii te cheikh masamba mbàkke la ko tudde doomi maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru yi moo xam sëriñ aydara mbàkke ndax bi mu génnee àdduna sëriñ aydara mbàkke itam defal na ko marché bu yaatoo yaatu di ñu wax jikkoy jëmm jooju di sëriñ boobu mbay njanaate bi mu génnee àdduna moom sëriñ boobu mbay njanaate itam sëriñ moodu awa balla mbàkke itam mi njëkk a bu yaatoo yaatu itam la àndal ngir dem fekke ji denc ba ba tax na itam tudde na sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke doom sëriñ Abdul Xudoos Mbàkke di doomu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru xalifab sëriñ Buubu Mbay Njanaate bii toog xalifa sax sëriñ la ko tudde ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen sëriñ Buubu Mbay Njanaate tudde doom ndax léppam daaru la ci lool nag la sax ba nim génnee àdduna moom sëriñ Buubu Mbay Njanaate ci atum ci dëkk cosaanoo nag di njandaatee ci atum 1946 nag la dellu nag ci dëkk boobu mu cosaanoo nag ngir génne fa àdduna di njandaatee laataa muy dellu nag ci dëkk boobu nag mu feeñe jamono nag te génne fa àdduna di njandaate ci atum 1946 mi ngi woon nag ci dëkk bii nag di daaru mbay te suuf soosu maam Cerno Ibrahima Faati mbakke ndaamal daaru goroloon ko ko joxoon ko ko wala suuf soosu itam maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru joxoon ko ko tam woon ko daaru mbay daaru mbay nag nekk itam nag ci wetu dëkk bii nag di kosoo dëkk boobu nag la bàyyi ko ci atum 1946 na day delluwaat nag ci dëkk bi mu feeñee jamono nag di njannaate ginnaaw nag bu ko mag ñi laajee lan mooy sababu mu jóge daaru mbay ngir fas yéene delluwaat ci dëkkub cosaanam boobu di njannaate mi ngi leen di xamal ne ay mag ñu baree baree baree bari dañoo tëdd nag ci dëkk boobu di njannaate te mag ñooñu nag dañoo soxla woon ndimbal te ndimbal loolu mag ñu soxla woon nag ci moom moomu nag lañ ko yaakaare loolu moo warale te mu bëgg a delluwaat njannaate nag ngir bu génnee àdduna nag ñu tëral ko ci armeer yooyu ngir itim nag mu wétti li mag ñooñu soxla woon ndimbal bi mu delloo nag ci dëkk boobu nag di njannaate atum ñaari ati suñu borom nag la génn àdduna muy ci atum 1948 sëriñ buubu mbay njandaate mi ngi génn àdduna ci dëkk boobu di njandaate ci atum 1948 mu dëppoo bisub talaata fukki fan ak juróom ci weer wi di weeru tabaski ci atum 1367 ci gàddaay gi talaata fukki fan ak juróom ci weer wi di weeru tabaski ci atum 1367 ci gàddaay gi dëppoo muy mardi 19 octobre 1948 mardi 19 octobre 1948 ci dëkk boobu nag di njandaate suba gi mu waree génn àdduna sax lu yéeme yéeme xew na nag ci dëkk boobu nag di njandaate ndax moom sëriñ buubu mbay njandaate moo xëy suba bindub lettre jox ko kenn nag ci ay taalibeem taalibeem boobu mu joxoon lettre ba nag moo tuddoon sëriñ abdu mbay di ko xamal ne dem ci dëkk bii di ñaaxeen joxoon ko ko ku ñuy wax sëriñ ma silla silla sëriñ ma silla silla mii nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moo waxoon ci moom ne képp koo xam ne taxawu na la sa ëllëg leer na loolu itam moom moo taxoon na ci mag ñi génnee àdduna doon nañ sàkku nag ci jëmm ji nag taxawu leen loolu itam moo waral sëriñ buubu mbay ñanaat bi mu ko leeree ne ci bis boobu nag dana génn nag lii di àdduna mu bindoon lettre sëriñ ma silla silla ngir di ko wax ne na ñëw taxawu ko ginnaaw bu ndaw li yóbboo nag lii di lettre ba ci sëriñ ma silla silla moom ba noppi bi sëriñ ma silla silla gisee ndaw li doon na ko waxal ne nag xanaa sëriñ buubu mbay daa bëgg ku ko taxawu sëriñ abdu mbay moomu yóbbu woon lettre bi nag doon xamal nag sëriñ ma silla silla di ko wax ne sëriñ ma buubu daal fa laa ko bàyyi laataa abdu mbay nag di dil nag njanaate Mbàkke fekk na nag kii di sëriñ buubu mbay génn àdduna loolu moo waral sëriñ ma silla nag taxawu nag kii di sëriñ buubu mbay njannaate nag ci dëkk boobu nag di njandaate kon itam ci dëkk boobu nag di njandaate itam nag lañ ko jébbal boroomam ci bëccëgoog talaata fukki fan juróom ci weer wi di weeru tabaski ci atum ci gàddaay gi dëppoog muy bisub talaata fukki fan juróom-ñeent ci weeru octobre ci atum ci teewaayu lenn ci ak njabootam ak nag lii di ay taalibe na doomu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bii di sëriñ dara mbàkke def na ay way sax ci sëriñ buubu mbay njanaate di ñu wax ñaata at la dund ci kaw suufa ak itim ni mu farloo woon ci njàngum alxuraanul karim moom jëmm ju tedd jooju di sëriñ buubu mbay njanaate marsiya bu yaatu daal la ko sëriñ ay dara mbàkke ibnu maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru defal moom sëriñ buubu mbay di ñu wax ay jikkoom ak melokaanam ak nu mu fonke woon alxuraanul karim ñu teewlu lenn ca marsiya bu ko sëriñ ay dara mbàkke defal sab'an wa sab'iina wax xam ni ànd na tey li mu jàng alxuraan tey li mu tari alxuraan musta fanaan benn la lu dul mu tari alxuraan loolu nag leen la ci marché bu ko sëriñ Aydara Mbàkke defal jëmmi marché bi yépp nag indi luñ leen ko ginnaaw marché boobu ko sëriñ Aydara Mbàkke way sëtam sëriñ Koso Mbay moom tim def na am marché bu yaatoo yaatu nag ci maamam jooju nag di sëriñ Buubu Mbay njannaatee mag ñuy wax ci biir marché ba nag dunduk sëriñ Buubu Mbay njannaate ay jaar jaaru sëriñ Buubu Mbay njannaate num fonke woon alxuraanul karim num daa yare num daa taxawoo mag ñi num nekke woon ci ginnaaw maam Cerno faati mbàkke ndaamal daaru ak njariñ nag bu mu amoon ci mag ñi ak mboolem nag dëkk yi mu taxawu maanaam daal marché bu yaatoo yaatu daal ci dundu sëriñ buubu mbay njanaate la sëtam bii di sëriñ koso mbay def nag ci maamam jooju di sëriñ bu mbay ñu lu marché bi wala lenn nag lu bokk ci marché bi ku dëddu àdduna la jublu yàlla ba tax na am na ay may ca yàlla man kaana lillaahi kuy jëf ngir yàlla allahu kaana lahu ci yàlla billaahi moom ku nekkaloon buur yàlla la ba tax na am na ngërëmul buur yàlla te loolu moo di am ga saa ak mbaxana kaalaga ngir màggal ko saa yu génnee asaka mbaa muurum koor yónnee mu dem ca sëñ ba yëgal ni mooy góor xamee na sax yooyu yële ña ko war a wante sëñ bi ba ko booleeg ñoo ñële moom sëñ bi mel ni mu ànd mu xaata banteeg sëñ bi lañ waxante sëñ ba defal ko foofa lu mel ni jant ngir ñeen la jóge woon dem wuy mbër ma ba mu xàggee la ko woolu naa moom sëñ bi yëkkati fa ab kaamil jox ko kaamil baa nga jëndaati ku fa ñëw gis ko daana yorub soccu kasaaka seetu daana yorub rusal kasaaka saatu daana solo daaray daraay baxaak cubug naar mbalaanam sàmba selbe kii nuroog naar ku bëgg fas la daana war ca jeeñ ba ku mën nga war la daana dëgg dëgal ba ku bari bayre la ku am xorom la boroom wilaaya la boroom taal la ku tabe woon la daana lépp daal koy maye daana xamit lenn kese daal koy joxe ku am yërmande la leete lewet na doom am ful la am fayda yëgal ni lii mooy ndam ku am

boobu mooy mu seddu alhamdulilahi ñuy sant yàlla ci borom tubaa doy na sant yàlla juróom-ñaar fukki at la am ci duniya yu teg juróom-ñaar maax nga ñëw cay duniya ba ñu xëyee xibaar ba siiw ca réew ma fu nekk aw aw nit bawoo ca réew ma njaboot ga ak taalibe ñëpp jooy nañ góor ak jigéen tund wa ñëpp jooy nañ sàngam ba ceerno ibra faati daa dem mu teg ca juróomi atit mooy mu xëy dem bisub keroog xalifa baam fa teew si sëñ Moodu aw ba war ànd ak mbooloo ma kabiyon bay riir moo sëf mbooloo ma jàngkati xasida ak xuraan kenn defatul fa wan ay karaama di wax ci sëñ boobu lu doy karaama keroog la sëñ Moodu génnee der ba foofa der ba sëñ ba yoroon ci géej ga foofa keroog la alxuraan di ci ama awgasin la fay njëndaate ci taarixu milaadi xàmmee ne daal yoon wa jàng ba ni aru jub te loola yoon wa yeeteek jàng lay jaamu sunu buur ba yàlla liggéey ak yare ngir buur ba yàlla taaram ba ceerno jël na ko baatin ba moo doo ko yore xorom nga masamba jël na ko tabem nga ab doo ko yore dayom ba ceerno jël na ko waxin wa Muusaa ko yore jigéen ñi ak góoñaafiyam gi comme jëñ ñëpp a ko yore amina amina neen amina bi jaayi ahmada kilay amina kon loolu mooy marché bi ko sëtam defal sëriñ Kosso Mbaye mbay njannaate njannaate wala ci jaar-jaaru sëriñ buubu mbay njannaate nag nu mu fonke woon maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru li mu ak njabootam ñépp jébbal borom daaru ak ni nga xam ne nii itam la gëme woon borom daaru ci ndigal nag lu ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim joxoñoon di ko wax ne maam Cerno mooy yoon wi wala maam Cerno mooy sa bunt ci yoon wi loolu sax tax na moom bi mu génnee àdduna moom sëriñ buubu mbay njannaate ci atu 1948 taawu ba di sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke délégation bu bisub keroog ngir fekk si nag dencub sëriñ buubu mbay njannaate bisub keroog sax sëriñ moodu awa balla mbàkke seedeel na lu am solo sëriñ buubu mbay njannaate fa la yendu itim ba ngoon mu àndaat ak mbooloo ma nag delsiwaat daaru muxti di xam ne kenn ci jàmbaari boroom daaru yi génn na àdduna ay xalifaam nag nii la tëdde moom sëriñ buubu mbay njannaate ci atum ba atum ku ñuy wax sëriñ ceerno mbay moo ko njëkk a wuutu nekkub xalifaam ñaareelu xalifa sëriñ buubu mbay njannaate ci atum 28 heures di sëriñ Modou Mbaye ñetteelu xalifa sëriñ buubu Mbaye njanaate mooy kim faye Cheikh Massamba Mbacke ibnu Mamor Anta Sali Mbacke ci atu 1988 ba atu 1994 ñeenteelu xalifa sëriñ buubu Mbaye njanaate mooy kim faye Cheikh Mamadou Bachir ibnu sëriñ Touba Khadim Rasoul ci atu 1994 ba 2009 juróomeelu xalifa sëriñ buubu Mbaye njanaate mooy kim faye sëriñ Abdoul Khoudous Mbacke moom mam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru moo fi toog 2009 ba nëgëni ñu koy ñaanal moom sëriñ Abdul Quddus Mbay mi suñ boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal ko nag ki njabootu sëriñ Buubu Mbay Njanaate ndax kat sag la ci yoon wi te sag la itam ki njabootu sëriñ Buubu Mbay Njanaate mi ndax soo demee nak ci dëkk boobu di Njanaate itam def na fa nag lu takkoo takkoo takku moo xam yeesalaat dëkk ba defaraat kër ga ak barab ba kon jërëjëf sëriñ Abdul Quddus Mbay ibnu sëriñ Buubu Mbay Njanaate moom mi toog juróomeelu xalifa waa waajuram suñu boroom yàlla na guddal fanam ak mbooleem njaboot gim séqal sëriñ Buubu Mbay Njanaate xam doom la sët la ak jarbaat ak bépp taalibeb sëriñ buubu mbay ñanaate wala ngay ab soppeem suñ borom am na ko mën na ko yàlla na ko def sëriñ buubu mbay ñanaate nag am na nag liñ tudde ak màggal muy bis boo xam ni njaboot gi itam ñoo ko jàpp na ngir di ko ci fàttaliku muy fukki fan ak juróom ci weeru tabaski di bis bi mu génnoon nag lii di àdduna bis boobu itam bu njëkk daanañ ko fàttaliku itam nag ci bis boobu mu dëppoog nag bis bi seen waajur wa nag génnee nag lii di àdduna njaboot gi itam màggal nañ ko ay ati ati at ci bis boobu di fukki fan ak juróom ci mujj gi itam nag njaboot gi itam waxtaan nañ jàppaat bés bi nag heure bu leen soobee ndax fukki fan ak juróom ci weeru tabaski nag lu ëpp itam cib nawet itam lay doon te ñoom itam nag ay baykat lañ te bés boobu itam bëgg nañ ne képp ko yaakaar sëriñ boobu mbay njanaate nga teew ca looloo waral nag ñu jëlee ko nag ci fukki fan ak juróom ci weer wi nag di weeru tabaski yóbbu ko nag ci bis boo xam ne ni njaboot gi nag danañ xool ne bépp taalibe wala képp kuy njaboot itim bis boobu ñu jàpp itim daal danga ci mën a ñëw ndax kat ñu màggalal seen waajur woowu nag di boobu mbay beneen bés itam nag bu ñuy fàttaliku sëriñ buubu mbay ñanaate te sëriñ buubu mbay ñanaate ci bopp itam moo ko taxawalan boppam muy bis bii nag di guddi gàmm di bis bi ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam feeña jamono bis boobu itam daana ko màggalal boppam bis boobu itam ba tey nag ak njabootam itam ne ñu ngi koy wéyal nag ci dëkk bi sëriñ buubu mbay sancoon di daaru mbay sagata doom ji di sëriñ abdul xuddoos mbay nag moo koy taxawu nag ci dëkk boobu nag di daaru mbay sagata ñuy ñaan ci jàmbaari ku baax ki sëriñ mbàkke ndaamal daaru ginnaaw bu mu jébbaloo ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci gànnaar te sëriñ tubaa seexul xaddim doon ko wax ne soo demee nga topp ci ginnaaw maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru di sëriñ buubu mbay ñannaate yàlla na ko suñ boroom fay te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajey kamu yaakaaroon di maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru